你好办。waaw ziar ziar sama gaay ziar ziar ziar te maa ngi ziar ñëpp xam nga gars moom xam naa ni gëj nañ maa gis quoi temps dama ceere woon quoi mais maa ngi ziar gars yëpp di jox ñëpp wàccuwaay di wax rek di ñëw rek di wax ci Sénégal quoi ak luñ ñor quoi parce que ñun <laughs> ñun moom xam naa ni Sénégal kenn mënuñu fee génn si lañ bokk ziar naa la far seen Diouf ziar naa la xam nga Sénégal gi ñu bokk moom kenn mënuñu fee génn moo tax am na ci yoo xam ne moom ñun sénégalais yi ñoo ko war a mën a gën a bañ. parce que boo xoolee rek ci gouvernement instant bi ñu toll xool yëpp a féex ñëpp ñëpp seen xool yaa ngi fiix ñëpp seen xol yi dañoo féex ñi nekk ci jàmm ñii di dund jàmm tey jii tey jii ñëpp boole seeni xool ak seeni seeni naqar loolu yëpp daf ko soppi ko bànneex ndax lal loo xam dañ cee topp di daw ay at yi at yi at mënuñu koo jariñoo parce que saa yi ñëwee rek yaakaar tas ba tey jii yàlla def li muy def gën sénégalais yëpp di ko namoo am ay doomu xaraam yoo xam ni ñoom tekk tekkiwuñu dara nekk ci fond bi boom ñoom nga xam ne ñoom si ay seytaane lañ kat lañ gis naa lu ñuy duula ko dajale te lu ñuy duul di dajale ay président ay lu tax président bi waaw pale warul fa lu tax pare de cambar cambar yi lan Sénégal dañoo am luñ mësta am li ko dalee Senghor ba ji wàcc ci Macky sàll Sénégal dañoo am luñ mësta am tey ji buñ ko amee nag dina cambar cambar bi dina bari li leen li peuple Sénégal dañoo génn tertu gaynde yi sagal suñu président Macky Sall moo tax seen xol yi fi mu nekk nii dafa bon ba mënu leen ci mënu leen koo supporter moo tax ngeen di génn yéen ñëpp mënu la ëllëgee ngeen mën koo téye xam nga xam nga mënu leen koo denc sax jéem rafetal mais déedéet munu leen koo téye ndax seen xol yi moo ñuul parce que dana war a doon ay Séné ay vrai sénégalais parce que sénégalais bu fekkee deretu góor mooy daw sa yaram wala deretu Sénégal. li ñu jox gaynde yi boobu ba tey ngeen nekk si di ŋar ŋare cinquante millions gaynde yi indi fi presque ñaata ñaata millions lañ dugal bii Sénégal trois milliards trois milliards trois milliards yooyu ku ci nekk ñoom mën nañoo am cinquante millions lan la seen xool yi di bone yéen mbër yi dañuy fay benn mbër ñaata millions ay cent millions ko toog ci benn jour ñi ñaata ñu koy sonal sénégalais ñi waroon cinquante millions yi dafa tuuti ndax ñi li ñuy am seen club yi rek moo ëpp loolu waaw comme comme dañoo war a jëngu jaante jaante bu fekkoon sénégalais yi tey jii yéen li li li gën a metti moom ngeen def tey jii yéen waru woon sax ubbi seen gat yooyu di wax ndax parce que Ousmane Sonko ba mu soxlaa xaalis da ngeen koo cotiser cotiser leen ko sénégalais yi te am na ay hôpital yoo xam dana am problème tey jii mënoon ngeen jëm village yi ngeen di kaas di duula ko dajale village yooyu ñoo ngi fii ci biir dëkk bi ci ci Sénégal yoo xam waroon ngeen moo mën a jël téeméer téeméer yooyu bu dee cinquante million ngeen ki ko mais dañ ko jël dajale ko jox ko benn nit kon nag kii bu ñu tabaxee seen réew gañeel seen réew indi fi lu fi mësta am kon ga dañ leen a war a wax gàcce ngaalaama te sénégalais yi bu ñu mënoon a cotiser ku ci nekk mi francs mille francs dañ koy jël cotiser ko jox ko gaynde yi ndax dañoo siggil sénégalais yi parce que tey jii wax ak sax benn nit wala ngay wax ak koo xam étranger la ngay wax ak moom ngeen di wax danaan Sénégal mooy première équipe waaye amul biddéew amul amul biddéew biddéew bi mais loolu c'est defet la c'est honte dëkk réew Afrique yëpp moom lañ ñuy saboté tey nag bu loolu tey jii dañee suñu doomi réew yi nga xam ni tey jaaxante nañu ba indi fi coupe boobu kon yéen da ngeen a war a tëj seen làmmiñ tëj seen làmmiñ avant lii di am pour avant ah dañoo jël maanaam dañoo jël gaynde yi maanaam di ñoo xam dañoo nekkoon ci suuf wallaahi di ñaan naan yàlla bu ndaw ñëw yàlla bu ndam ñëw ndax bu ñëwee Macky Sall moo am ndam yow Sénégal Sénégal nga ne yow sénégalais nga deretu Sénégal mooy daw sa yaram chaque jour ngay jooy nga naan coupe bi dañ koo war a am chaque jour yaakaar di tas anamu anamu anamu rek moo boloke ndeyam xam nga maanaam dañoo dañoo toll ci jamono ji nga xam ne yi dañoo war a muus war am xel wala di xalaat ndax am na ci yoo xam ne ñoo ngi koy sàggane may leen ma tur waaye ma xool kii laa amoon appel ñoo tolloon ci ci ci gars yi nga xam ne ñoom maanaam dañoo respecté wu sénégalais yi ndax xam ñàkk respect sénégalais yi moo tax ñu dugg ci biir kii ku ci nekk di def vidéo di wax ci ay terrain yi ñàkk fayda sénégalais dañoo tal lool sénégalais li ñu tal mooy mbégte gi dugg senegal te senegal di ko jooy ay at koo waxal mu yay la Afrique pays Afrique boo waxal da lay yay mennum Sénégal meilleure équipe ci ci Afrique yow mënoo am coupe d'Afrique tey jii yàlla wër sa rëgëyal ñëpp dañoo war a bég kontaan wante ay golo ak ay xawma ay keña nekk fii ci Facebook bi xamuñu xàmmeewuñu ràññeewuñu duñ dem senegal toog seen live nekk ci Europe bi ñoom Sénégal da leen a gedd ndax mënatu ñoo dem Sénégal ndax ay tooxi doona rek lañ def léegi nit ñi di leen bàyyi xel di leen déglu ay million personnes di leen déglu ci ay seeni wax yi ñàkk fayda yi ñuy wax nii Guy Marius Sagna moom war naa ubbi gàttam googu ubbi làmminam boobu naan day wax ak peuple sénégalais yi ñàkk jom mënta weesu loolu parce que boo dee ak gor nga xam ni gor nga nga xam ni yow sénégalais vrai sénégalais nga ndax Guy Marius Sagna wax dëgg yàlla deful boppam sénégalais xam naa ne camerounais la def boppam parce que bu defoon boppam Sénégal du génn sax fu mu waroon génne daa waroon na féliciter président Macky Sall féliciter équipe nationale mais ay wax yu ñàkk fayda yoo xam ne amul bopp amul génn bëgg a lor askanu Sénégal bëgg a théorie seen yooyu ngeen def après moo dégg ñu naan non génnewaat leen live bi génne leen live bi pour ñu live nañu live affaire yi gaayaan nañ ñëpp live yéen duul tëj leen seen làmmiñ nii li ngeen di wax daa bari li ngeen di xëw daa bari nit ñi dañoo maar ci seen wax yi gis nga kii wax ak kii jëf mënta bokk te mag yi fi nekk ni dañuy tekk ba pare boole kaak jëf boo xoolee ci 2000 kii li mag mag yi réalisé nga yeneen xool ñi demoon Cameroun luñ lay wax ñi demoon Cameroun na ñaan ku ñëw danaa la makki liggéey na demoon Cameroun laa la wax ku ñëw danaa la makki liggéey na ku demoon beneen pays Afrique boo mënti dem boo ñëwee da nga naan ki liggéey na boo waree ci dëkk Afrique boo ñëwee da nga naan ki liggéey kon yéen lan mooy seen problème ngeen bëgg a yëngal suñu Sénégal yow guy may saay xaw ma ngay mel ni dëj yow li nga war a def mooy dama wut dama wuti ndey liggéey liggéey te ngeen tëj seen làmmi yi yéen nag Dramé ak yéen ñëpp ñu nekk ci biir Facebook bi ñeme ngeen yàlla Ousmane Sonko c'est kii Ousmane Sonko est-ce que est-ce que ñun yow Ousmane Sonko war a lijjanti digganteem aji Adji loolu mooy priorité loolu la ñuy toog fi mu nekk nii moom waroon naa rus sax moo tax xaalis Ousmane Ousmane Sonko xanaa gisoo ko nu mu jeexee tàkk. parce que day xalaat moom li ko war a fekk mooy diggante mook Adji Sarr dafa doon lu wér loo xam dañ ko war a ñoom justice da cee war a taxaw ñu attaleen ci benn ñu attaleen mu jeex benn benn yoon ku ci nekk xam nga fooy féete parce que nag réew mi réew justice la président Macky Sall wax na loolu ñuy wax ay wax yu ñàkk fayda ay sàcc ki ñu sàcc portable kii sàcc da nga ko mën a téye wala population bi nekkoon biir palais est-ce que mbooloo moom ñëpp mën nañoo téye mën nañoo téye ñiy sàcc kii sàcc day yoot kii sàcc technique la yor day def technique am ba jël portable am ñëpp a ngi ci mbégte bi te kiy sàcc day profitoo seen xel yi xel si xel lay lay profitoo moom maanaam buy wax ak yow sa xel tukki si lay mën a jël sa alal boobu ñëw Sénégalais yëpp seen xel yi tukki na. ba ñu mën a jël seen alal ngeen nekk foofu di wax naan Bruno Dia ay ñii bu mu nekkee ci pale yéen duul ub leen seen làmmiñ nii waru leen wax yéen Sénégalais yi ñoo war a génn Sénégalais yi dañoo di xoolal. li tax Sonko dem encaissé ay xeer lii rek la li tax mu dem encaissé ay kaba lii rek la parce que sénégalais yi dañoo dem ba jéppi leen yéen ak seen leader yéen waa Pastef du ma wax sax kii waa Pastef laay wax ndax yéen ëpp yéen a gën a rëy làmmiñ ci réseaux sociaux yi ñi ngeen seeni moroom ngeen àndal ñoom sax def nañ feer play ñëw ca bis ba wan ni ñoom ay sénégalais lañ xam ni si deret sénégalais bi mooy daw seen yaram mais yéen à part ça yéen deretu sénégalais yi dawul seen yaram yéen xaw ma ay Cameroun ngeen xaw ma ay Guinée mais xaw ma ñun yéen ban genre yéen bañ xam naa dañ leen a wàcce pour ngeen pour ngeen sonal sénégalais yi parce que gii yow nan lan nga liggéeyee sénégalais yi yalwaale na leen fi oto ba nga koy dawal te loolu la lay topp ba yow mi di ndax waa Pastef duñ la teggi tànk ndax saa yoo génnee ñun la ñoo la yalwaanal oto jox la ko moo tax munoo munoo def leen fa force da ngay def da ngay dox seeni waaw ñoom noonu lañ lay corrompé jàpp la far force ngay dox seen waaw mennum kenn laa ci gis koo xam ni moom dafa dëgër fit génnee noonu muy muy muy muy bëgg bàyyi mais à part ça yéen ñëpp dañ leen financé di leen jox ay affaires yi ñi nekk ñi nga xam ne journalistes yi corrompu yi nga xam ne ñoom dañ leen a compre ko dalee Walfadjri wala ay Pape Alé Niang ku ñàkk fayda googu nga xam ne wérul bopp bi baaxul Pape Alé Niang whisky yi muy naan ak ñoo ko sonal parce que yéen boo leen xoolee rek ñi nga xam ne ñoo fi nekk défendre waa Pastef xool leen rek man nit yan xeetu nit la kenn raw naw leen kenn respecté respect wu leen parce que seeni comportement dafa bizarre ñi ay nit ñoo xam ne tekkuwuñu dara dara dara dara dara bëgg taxaw ci biir réseaux sociaux yi nag naan askanu senegal la ñuy waxal yow nit ñaa ngi dund ay erreur ma wax kayfon benn doomu xaraam kayfon nga xam ne tekkiwul dara nekk ci ginnaaw whatsapp beeg kii bi di wax ay waxu yu yu yu singome wax yoo xam ne kenn singom day mel ni singom bu sàppi sax kayfon lu mu nekkee nit ñaa ko ci bàyyi. gis nga président lii da cee war a jóg di nga booy kañe gi nga xam ne ñoo nekk biir Europe nga xam tekk tekkiwuñ dara lii moo tax européens yi mer gis nga yéen yi ngeen di def ngeen yaakaar européens yi xamuñu ko yi ngeen nekkee ci réseaux sociaux yi affaire yooyu ngeen nekkee ci réseaux sociaux da a yaakaar ni gouvernement xamu ko gouvernement ko gën a xam français ñoo leen gën a xam doomu xaraam yooyu ngeen nekk nekk Europe di def yéen yëfu doomu xaraam yooyu da ngeen nekk ay nit parce que yéen dong doo ay sénégalais yi nekk biir Europe seen i naw la ngeen fay nekk ñu respecté leen lool ndax Sénégal fu mu dem dañ leen naw parce que yéen da ngeen a dem ba génne seen bopp ci di ci sénégalais kon waru leen dana war upp seen làmmiñ waru leen wax ñu ñàkk fayda ngeen. parce que ñàkk fayda mënta weesu sa réew ñëpp di manifesté wu ngeen ñëw di wax ay waxu picc yéen kontaan wu leen mbégte wu leen parce que da ngeen a woon Macky Sall am défaite ba ngeen a woon Macky Sall am défaite yéenewu leen coupe du monde bi. nit ñi jël coupe du monde bi mosu leen koo bëgg mosu leen koo bëgg kon léegi rek boo demee ba seen xel ñu sénégalais yi am sénégalais yi am ndam ngeen commencé di jéem a def semblant yooyu di dugg si biir nit ñi simol bi di jéem a jaay benn naan non cest à di jéem a di ngeen di wax gëmu leen ko da ngeen di duul yéen waa yéen laay waxal activités yi nga xam ñoo nekk ci réseaux sociaux yi duul sonal askan bi bu ñu waxee ñuy wax yéen seen njiit bi doo dooleen wax ci li mu bi tam war koo naan moo moo waa moo li mu sombeeg Adji Sarr nañu wax ci loolu loolooy fi mu nekk nii loolu moo comme jox nañ ko jox nañ ko titre bi dam na doon maire bu koy xool affaire bi sax teewu ko ak sëñ Tuubaa mais da ngay jantale quoi romb gars yi njàpp eh, mbër boo xam yow sa ndigg yaa ngi noox parce que lan la xalaata ko jàpp ndax doomu jàmbur bi mu def noonu doomu jàmbur bi day répété ci bopp bi sa jour da koy xalaat mais da nga yaakaar Adji Sarr daal tëdd ne rek ngeen di def lu ne lu ne def ngeen ko jéem ngeen koo def lu ne duulal ko fenal ko yéen euh, xeetu journaliste yëpp ay Babacar ay ñooñu lu ne génn ngeen wax ko Adji Sarr duulal ko façon duul bu nekk yàlla àndoo ci fen ngeen mais li ñuy dem ci kanam rek ngeen xam ni dëgg dëgg day gàcceel ay fen ndax li ñuy dem ba ci kanam rek ngeen xam ni Sénégal yi dañuy dem ba nangul aji xam ni aji lii muy wax lii muy jiñ seen waa ji dëgg la bu ñu neexee ngeen nekk ci réseaux sociaux yi amee réseau ay eh, mais na ngeen nekkaat ci kii eh ub leen seen làmmi ni tëj leen seen làmmiñ yi te jéem a liggéey jàppale président de la république du Sénégal mi Macky Sall ñu jàppale ko 2024 ñëwagul ku yàlla toog ngay toog te man bu ma sañoon man ñi nekk fii si gouvernement bi di xëccoo doy kenn doyu ma ci kenn parce kenn doyu ma ci kenn parce que ñoom kenn wane wu fi capable koo xam ni war nga gérer réew ki war a gérer réew man gisaguma ko ci ci ñi ñiy wujje kii moom euh, kii Ousmane Sonko moom ñoo ngi koy ñoo ngi koy jiñ bu yor na dem lijjanti loolu ba pare avant mi taxaw ak sénégalais yi di laaj réew na dem lijjanti loolu parce que nit nag da war a am fulla ak de setal sa bopp setal sa der ba mu set wecc moo gën ñàkk wiiri wiiri beeg wiiri wiiri bi muy wiiri ñàkk ta bëgg bañ a jàkkaarloog aji saar na dem jàkkaarloog moom aji sonko nu mu doomee doom jàmbur noonu la aji doone doon jàmbur parce que ñoom ñëpp ay sénégalais lañ lan la yéen duulkat yi dañ ko fee bëgg a fal ngeen ñu bëgg ñoo forcer Ousmane Sonko chaque instant sonko sonko lii sonko laa affaire yi du loolu li xew mooy procès bi nañ teg procès bi mu dem mu jàll loolu ngeen war a wut wax moo tax bu ma gisee ay imaam taxaw di xeex naan jikko yi ànd jikko yi ay ree la may def ko jikko boo koy réglé ci base ñooñu war ñëw rus sax ndax tuumaal nañ fi ay doomu jàmbur na affaire góor jigéen jigéen ñi surtout nag dof boobu nga xam ne wérul Cheikh Omar Diagne nga xam ne xalaatam fii la ñëw génn naan professeur la du professeur tus dara xam ko ñëw Sénégal xam nga Sénégal pour yow da nga boo génnee télé yi rek ñu jox la professeur professeur ñun Sénégal war nañoo def nag ku toog ci télé bi di wax professeur nga laaj ay kàddan nga ñu laaj la sa diplôme professeur balaa ñu laa woowee professeur ci tele yi. parce que du ñëpp la ñu war a woowee professeur professeur sa xel daa war a sell bu looy wax nga xam ko mais professeur yoo xam ne sa waay chaque jour saa yoo génnee rek dëli ngay wax saa yoo génnee wax dëli di wax. ay professeur yoo xam naka sax kenn musulaa génne diplôme na la man professeur di école bii laay jàngale Cheikh Omar Diagne ban école lay jàngale nañ di wax ban école lay jàngale te moo dàq bu ñu waxee muy duula ka dajale naan day analyse Walfadjri wax leen ma Sanjo bu ndax daa def kii kii journaliste soin bu ndax daa def kii journaliste xaw ma xaw ma nan njaay sëriñ boobu nekk foofu njaay tamit def analise ana sëriñ ak sëriñ sëriñ sëriñ bi ñaanaa sëriñ sëriñ ci tariyaax bi def analyse ci politique man Sénégal rek laa ko gis bu yóbboo kañ université yooyu yooyu ñu tëj ko ñu tëj ko ko koo xam ne ab sëriñ la yow nga dam ba ci yàgg léegi yow analise nga quoi waaw léegi analyse léegi Sénégal looloo fa am quoi gën a ëpp la nit ñi làmmiñ li ngay wax sa làmmiñ na rëy nit ñi fu ñu toll di ko dégg loolooy coow li Sénégal bu sa làmmiñ bu rëyee rek fi mu nekk nit ñëpp dañ lay bàyyi xel mooy sénégalais yi nag léegi loolu lañ comprendre ba léegi ku ci nekk da ngay bëgg a foofulewu di wax lu la neex ak lu la saf ci biir réseaux sociaux yi ñu bàyyee la ci nag puis am na ci ñoo xam ne ñu wallahi azim ñëpp dañ leen waroon a téegal ci kaso yi parce que am na yoo xam boo ko dee tuumaal état état dalaa war a jàpp normalement ay bàyyi mu sedd yooyoo indi ay démocratie bu démocratie bu sedd ay démocratie bu bari bi nit dafa am war a am frontière règlement lépp dafa war a am ndax looloo tax ñu teg gouvernement mais gouvernement bu fekkee ne lu la neex lu neex waaye wax lu neex lu la neex wax ay ay nit ñoo xam ne tekkiwuñu dara ay Guy Marius Sagna ñëw ci biir réseaux sociaux yi taxaw wax lu leen neex xas yow na ngay tiimee gouvernement lëmm nga naan ay vagabond lañ ay vagabond gouvernement loolu rek dëli la loolu rek mooy saaga na nit ñi te loolu lépp loolu loolu nit ku ko wax ay nit nit ñi dañoo waroon a jóg porté sa ndey plainte yóbbu la parce que danul yoon ñu dañoo toll ci étape boo xam ñu suñu réew dañ ko war a defal te réew nag boo koy togg jikko yi ngay njëkk a defar na jikko yi sell ndax boo yi ma gis ñi réew xamadi ndax ñii waruñu leen mën a jox suñu réew suñu réew nan la ñuy jëlee ay booy yoo xam dañoo xamadi réew respecté wuñu kilifa respecté wuñu kilifa respecté wuñu ku leen mag taxaw ci net bi ay jigéen di xaawi seen sutura nday yi chaque jour ñuy daggal seen ndey yi ñu taxaw amuñu xam amuñu xam ay waxu naka sa nanga lañuy wax seen làmmiñ ni rëy duñ ay vrai sénégalais nekk ci net bi bëgg a fatt askat bi sonal leen xeexee guddi xeexee gàtt ngay jàmbur bàyyi jàmbur posté est que loolu c'est normal ba bari ñun ñun ay sénégalais ñun ay jullit lañ dañuy xalaat nit ku dee ngay kontaan fi la fi procureur bi dee musul am ci àdduna nit ku dee nit di bëgg procureur bi gaañu génn àdduna waa Pastef yi di di manifester wu kon bu ñu defee lii ci coupe ci ci ci coupe d'Afrique bi bu mu leen bett ñi yàgg nañ leen wax ni Sénégal ñorul leen Sénégal da na ñorul xam nga ni François mu leen koy wax mais seen xel yi moo leen nàccu gis nga ñii Sénégal ñorul leen ñii seen bopp ku ci nekk yaa ngi fekk xool noo amee place ci waa ci waa mais place boobu nag lu ñoom ñëpp di wër moo tax mënuñu ñoo sonal ñun askan bi dañoo yeewu ci seen dof doflu bi seen raqaaju bi ñuy def ndax ku ci nekk nit bu fekkoon nit bu waxee sax am imaan nit bu nee tëll wax nga xam nga danga koy mën a respecté mais xoolal ma ñiy live kan nga ci respecté kan moo ci nekk nit koo xam ne dañ koy war dañ koo war a jox cër wala dañ ko war a gën a respecté lan la ay xaayu sutura jàmbur ay wax ay fenal jàmbur ay kàcceel jàmbur ay akadoton ay ay géege ay nit ñoo xam ne tekkiwuñu dara turoo ñëw Sénégal ñoom seen vie def nañ ko bañ na ko ba ay ay front yi nekk Égypte lañ tuddee seen bopp seen délégation bi koo xam ne front la tuddee boppam ñu doon ànd ak na ah nga ñëw tuddee sa bopp nga gën a yées mag Sénégal am ay magu royukaay ñoo xam mun ngaa roy ci ñoom nga topp xam ma problème mooy nit ñi ñoo bon quoi dañoo yées Karim fii xaak fii la jóge président bi de la république du Sénégal Macky Sall war a dem war a dem mu naan bu mu dem France si kii parce que ñoom dañ leen a may micro yi ñuy wax xam nga seenu sénégalais yi ñoo amul benn programme ay mbët ak i kañe rek lañuy ñuy jox seeni micro nit ñi di ko bàyyi leen ñuy wax mais est-ce que war nañoo mën a dëkk ci loolu ñu war a wax dañ leen dañoo war a wax ñoom ñoom dañ leen a war a ràññee mais ay kolosaar ay kaña ñooy wax ci réseaux sociaux di wax n'importe qui lu leen neex te gouvernement du réagir parce que nag genre démocratie bu metti bi day tax frontière yi mooy tax nit di mën a def lu ko neex Guy Marius bu doon dëgg la Casamance sept personnes lañ fa jàpp rey fa ñett est-ce que Guy Marius jug na li jënd situation boobu comme doomu Casamance la moom doomu Casamance la mais Guy est-ce que mu jug na na damay lijjanti problème te Casamance bi ñoom ak Ousmane Sonko te ay doomu ndaw Casamance la ba ñu jàppee tey mënuñoo wax Saliou Saale ñaata at muy làqutu ci àll bi bu mu ju ba bañ nekkee bañ nekkee booy ba nu ñu màggee saalu Saale mu ngi ci àll bi dund bu dundagul belle vie mais léegi yéen ngeen toog di ko seetaan ah yéen ngeen war a wax ci kooku mais defu leen ko de. romb ñooñu ñëpp ñëw fii di wax ay wax naka réew mi am ndam nañu xoolal réew mi am ndam président kii bi mu leen may xoolal d'accord nañ ci réew mi bu ñu amoon lu ëpp loolu dañ koy jox jour yi dañoo bég xol yi sedd amoo benn jeunesse Sénégal bi wax moo tax ba nga waxee fukki jeunesse Sénégal da lay xëy tontu la ñaata jeunesse Sénégal ñoo la xëy tontu ay sénégalais dañoo xëy di la tontu di la defal chaque jour live di la dugalal ay ay TikTok. parce que li ngay wax noonu intéressé wu leen xam nga nit ki tamit li ngeen ñu bëgg a boo ñun awyeewuñ ci loolu duñ ko dund ak yéen ñun ay sénégalais lañu te lu ñu xam mooy jàmm la paix li ngeen war a def def leen ko mais bàyyi leen yu ñu def li ñu war a def bu ñu nekkee ci mbégte bu ñu wootee jàmm ñëpp dañoo war a sax ci jàmm jooj xool Facebook da ngay gis ay images yi rafet sëñ kii Jamil sëñ Mansour Jamil image bu rafet ak Macky Sall ñu taxaw di wax te xoolal foofu xalifa Sall Barthélémy Dias xool ay image yi rafet quoi Sénégal yi ci yooyu lañu war a rey te xam ni politique bi yu rayante ñun ñëpp ay sénégalais lañ képp ko fi def ñaaw ñaawteef muy gàddu koor mi après yaay xëy di ko rëccu parce que mun amaana mun nga koo def sa mbokk bi nga bokk ak ndey ak baay te doo xam parce que da dugg ci kër kii doon Pastef kii doon euh, APR kii doon xalifis te après yéen bokk biir gàll bi ba la xëy mu ngeen warante kii na kii mooy sama candidat kii mais la mooy problème bi mais léegi ngeen bëgg a jàppee réseaux sociaux yi daal moom ngeen di waxee seen seen seen i parole quoi di saaga seen i noon di wax lu leen neex n'importe kii amuleen leen yar amu leen taalibe ba pare yàpp ay doomu aadama di sosal ay doomu aadama ay jaamu yàlla yoo xam ne dañoo liggéey yàlla ba yàlla rek gërëm leen ngeen taxaw ci net bi di wax waxu ay wax yu ñàkk fayda ay wax yoo xam ni di lijjanti personnel nit ki mu ngi dugg suuf rondal bi génn na suuf rondal bi mu ngi dugg mu ngi ci kawlal bi génn na ci kawlal bi mu ngi ci dugg ci ay nit ñoo xam ne tekk wu ñu dara si seen life ngay lijjanti sëriñ bi de nii la sëriñ bi am na ñeent kër seen sëñ bas keroog ba mu génnee mu ni moom lu ko gën a metti mooy kër gu rafet gu am xam naa ngeen taxaw naa ñoo ñoo maanaam dañoo soxlawul yooyu lépp suñ tubaab dakaa liggéey ku ku ku ku maanaam ku jëf liggéey dëkk lëmm liggéey yàlla ba yàlla suñu borom danaa gërëm ndax gërëm mënut a weesu mbooloo mu toll noonu topp sa ginnaaw boo wootee ñëpp boo ña boo laajtee ñëpp dagg seeni kii di la di la jox arrière te boole tey jooy loolu rek fi euh, loolu rek askan bi dañoo fidèle ci ñun ci askan bu ñu bokk muy Sénégal réew partout fool dem dañ lay laaj Ahmadou Ba mais comme yéen la mooy seen problème quoi ngeen nekk ci ressources yi amère des Sénégalais yi Sénégalais yi ngeen fatt ngeen war a noppi tëj seen làmmiñ guy askan bi soxlawuñu yii politique politique politique jamonoy Abdou Diouf ba am yi ngeen ko indi saaga nday xas nit nit ku wax ngeen génn xas ko si live te yow mi koy xas tàppet nga fële nga toll ci àll bi boo jàkkaaroo kooku di ko xas mu noq la bu fekkee da nga am fit ñëw taxaw ak waajo waajo duma mais defu leen ko day def yëfu waaye di yëfu ñàkk fayda taxaw sa live eh diw nee na kii eh taal leen caméra bi eh, waaw na ñëpp ñëpp na partagé leen mu dem ndax euh, pale am na lu ñu bëgg a kii ay zaaru kayfon ay zaaru kayfon man kayfon kayfon ndeyam la gars war a récupérer xool kan mooy ndeyam quoi ak fan la juddoo ndax maanaam juddoo mu war warta mën a baax ba mu mel nii quoi parce que bu juddoo mu bu baaxoon du mel nii mu mel yow sénégalais yëpp di dund heure ngay wax ay waxu naka sarana ay waxu dof wax yi tekkiwul dara waxu kolosaar wax ku bëggul vie ci vie bu muy biir dara yow kay fon da ngay lem ay làkkatu ci biis yi ngay làkkatu ci biis yi nangu leen ndogal gis nga yàlla day daa nangu jaam muy nangu ndogal li yàlla def boo ko nangoo sa xol da dul am problème du jeex du metti Macky Sall moom la fi yàlla teg nañ ko muñalee ba keroog yàlla di ko fi jël di teg keneen te yàlla bu ko fiy teg keneen nañu xoolal ki gën ci ñun koo xam ne léppam dafa set deram dafa set léppam set ñu xool mais xam xame xamoo xàmmee woo ko ràññee woo ko danga xëy gis ko tëll amul lépp lu mu mësa a servir Sénégal te Sénégal dañoo soxla jaamu yàlla bu ñu servir ñu xam ndayam xam fameem xam fu mu juddoo xam na mu de na na mu patrouiller ba yegg si parce que jot na nag ñun ñu nekk ak ñoo xam ni dañuy warmaal suñu kilifa diina yi ak suñu kilifa aada yi ñi ñu leen di warmaal di leen jox seen gëdd di leen jox seen cër ñun jamono ji si lañu toll képp ku ñuy sànni suñu kat ñoom lañuy ñuy sànni suñu kat parce que boo gisee sax ñu yenn ñi temps yi sax ñu yàpp sëriñ si mooy yenn mafia yi nga xam dugg nañ biir kër sëriñ si bokk fa nag ba pare doon ay mafia fekk na di gëm nañ mais wóoluwuñu dañoo nekk ci lu leen neex ñooy joxe ay information génn informé jàmm léegi yàlla na xëyam dina metti de yow da fekk ba fu muy duusee fu muy sangoo nga koy nga koy naan nii la sangoo ba muy sangoo kii bi la sol kii bi nii la melak ak nii boo ko tourné nii la mel pourquoi lan moo nday lan mooy nday ñu toll ci état boobu te war a maanu yow politique ngay wax waxal li ñor senegal ak si kii mais génne ci tarixa jàmbur yi ak pas-pasu jàmbur yi saa yoo dugalee pas-pas yaa ngi ci erreur man du ma naw kuy dugal pas-pas man bu ma la déggee sa nga wax ci pas-pasu sëriñ bi mooy keroog laa la ba mais ñu ñoo war a am suñu matuwaay ak suñuy gëm-gëm ak suñuy xolo dëggu si suñu bopp ndax léegi ñu imaam sax day am lu lu lu ko wóorul sax mu koy wax di kàcc ay nit taxaw di jël kaamel di waaj di kàcc te ba kook ba muy dem tàgguwu te kook ba muy dem di doxantu ba dem dugg biir salon bi yow tàgguwu la yow respectel sa bopp waaw parce que président daa am lu ñuy calcul président daa am lu la war benn da ngaa war a mën a uuf njaboot bi sa yaatal sa xol xol daa war di yaatu nga mën a uuf ñëpp mais un deux trois nga génn un deux trois nga génn un deux trois dañ lay mere dañuy dem ba sénégalais lay bax dañ lay bax sénégalais yi bëgguñu nit ku late seeni bët chaque jour dañ lay indil ay ay ay gàllankoor Sénégal moom na ngay xaw a jafe jafe sa sa bopp mais rate chaque instant génn génn sénégalais ba dañ lay sàppi quoi. danaan ah xoolal gaa bi moom chaque jour kii bëgg na télé de bëgg na télé na ngaaka parce que yow Sadio Mané chaque jour yaa ngi génn naa ma ma Sénégal siiti ñàkk fayda yi nga xam amuñu fulla amuñu programme ñoom chaque jour ñu génn dem jël na am diw diw diw wala kii nii xam nga chaque jour ñu wax ci benn ci benn gàllankoor wala ci benn affaire boo xam ni nit ñi dañ ciy bàyyi xel xel bu xel xel boo xam ni ah sénégalais yi dañuy dañuy dañuy kontaan ci li ñuy def xam nga. waaw léegi nag ci loolu lañ ci état boobu lañ toll maa ngi léegi maa ngi leen di kii hmm. waaw Lamine waaw léegi ci loolu noonu ma leen di dimension yo commencé leen commencé léegi ci loolu ma leen di dimension boobu ñu doon waxtaan léegi nag dañoo am ci yeneen i étape yoo xam ne nit ñi jaamu yàlla dañ coo war a te dama ne woon bi dama koy des damay wax ak yi nga xam ne boobu ba tey ñu ngi ci réseaux sociaux yi di ñebe ka ŋaang ba pare ba ndam bi ñëwee ñu bëgg a raaxaloo bëgg ci biir bëgg a lekk ci añ bi dañoo waroon tëj seen làmbi ne nit ñi nii soxor ak rànkiñee moo am Sénégal moo tax kenn du dem Sénégalais yi tubaab lu ñu rawee mooy xoolal nit sa nit bu la rawee da ngay topp ci ginnaawam mais nit da lay raw nga bëgg ko topp ci même boo ko jotul nga jéem koo faagaagal jéem a def ay pexe ba rey ko wala nga jël place am Sénégalais looloo tax duñu dem tubaab bi tey ji am na kii lu am solo la mu wax tubaab day xalaat direction nga yor oto di dawal oto ba di daw nga jékki-jékki oto ba Sénég euh, tubaab bi da ci def ay matériel am ba construire ba taxawal oto Sénég mu ñëw Sénégal Sénégal bi jël benn nomba ak benn kii daal ko ci def takk na ko lii mooy moo koy aar ba oto bi du daanu ci esprit boobu lañu war a génn tey créer sama gars dama ne woon tey damay ñëw rek xam nga jaar jaar la comme Gagna Life ma ni xaaral tey jii ma wax ci nga xam ni ay kàccoor lañ ay kolosaar ak saay-saay moo wax ak ñoom. mais xam naa ni ñoo ngi jaay jaajëfatee ba beneen yoon xam nga ziar naa ñëpp.